ñu raxas loxo yi te takk masque yi soo ko amul mun nga utiliser mouchoir ñu moytu mbedd mi ak xeetu ndaje yi mën na dawal jàngoro bi dafa gaaw de ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi nañu saytu sunu yaram ba mu tële ñu moytu corona ak xarit yi gannaaw ba ñu leen nuyoo am na nañu mbégte ak contentement bu mag nara dikk ak yéen ci reportage bu yaatu bu ñu leen di amal fi nga xamante ne moo di Belgique gannaaw ba nga xamante ne coronavirus lëmbe na àdduna ñu koy woowee Covid 19 mu def ay ravage ci monde bi euh, te àdduna bi ak ay loxoom comme ni ko waykat yi di waxee tey ji ñu nar a ànd ak yéen dugg ci biir Bruxelles xool li nga xamante ne bii moom moo di jafe-jafe yi nga xamante ne. feebar boobu lëmbe àdduna amal na ko fii ci capital européenne fii ñu taxaw nii moom mooy gare du Midi il fait 17 te jamono bi heure de pointe la fii daf daan fees dell ak ay doomu aadama yuy ñibbi ci seen i kër ak seen i barabu liggéeyukaay waaye tey ñooñu ñu ngi confiné wu ci seen ay kër di liggéey di def li nga xamante ne moom lañuy woowee télétravail adduna bi yëpp confiné wu moo xam Afrique la moo xam Asie la moo xam Europe la. mu nekk jafe-jafe yu metti yu nga xamante ne humanité bi ñu ngi koy dund gannaaw ba nga xamante ne virus boobule dugg na ci àdduna lëmbee ko ñu ànd ak yéen ci reportage bu am solo. Covid 19 di jàngoro ju yéeme tàmbalee Chine wasaaroo ci àdduna bi nërmeel économie bi jaaxal àdduna wërngal kàpp fépp ci àdduna bi. ñu nemmeeku ne jàngoro bi nee na fa saraax nërmel ay économie nërmel ay doomu aadama jaaxal ay njiitu réew jaaxal ñi nga xamante ne ñoo di organisation yi yëngatu ci wàllu faj ci àdduna bi mu nekk jàngoro ji nga xamante ne fi mu duggee ci àdduna bi yéeme na lool indi ay jafe-jafe ci wàllu woo mën a séentu ci àdduna Covid 19 yóbbu na àdduna ci nërmeel. ngir defub jàngat ci jafe-jafe yi nga xamante ne Covid 19 dina ko indi ci dundinu askan wi àndoon nañ ak suñu ay invité ki ci njëkk di Momar Dieng Diallo di nekk entrepreneur bu ràññeeku ci Benelux rawatina ci Belgique Momar àndu na ak ñun wax ñu xalaatam ci njeexital li Covid 19 mën a indi ci wàllu économie ak naka la pays yi nga xamante ne ñoo di pays sous-développé yi ñu mel ni pays africain yi war a taxawee gannaaw ba ñu jàllee li nga xamante ne moo di Covid 19 ñu àndandoo seetaan situation bii moom gëm naa ni réew ñi nga xam ne que ñoom la ñuy wax les pays développés di leen jàngat situation bi jàngat bi si war yépp xool conséquence yi mu indi pour trouver trouver si ay solutions pour relancer waat économie bi dëkk yi nga xam ne que ñoom la ñuy wax dëkk yi yu nekk en voie développement mel ni comme Afrique c'est le moment ou jamais. ñu jël seen responsabilité yaakaar seen bopp gëm seen bopp dirigeant yi nga xam ni que ñoom lañu fal jox leen ñu gérer jot na nag ñu xeex corruption arrêté détournement yi mën na jàppale seen économie réew te loolu bu mu am il faut que secteur privé yu ni jàppale leen jàppale euh, industriels yi jàppale agriculteurs yi jàppale ndaw yi nga xam ni que dañu bëgg a xëy amuñu xëy pour mën a créer une une très grande société de consommation loolu rek moo mën a avancer loo suñu réew yi loolu rek moo mën a xeex ndool parce que kii nga xam ne créer ne industrie su fekkee am na consommateur rek dina màgg loolu rek moo mën a développer loo mënuma tontu si question yi yëpp te duma wax si diaspora bi na ñun foofu leen bokk diaspora bi aussi jot na ñu jàngat ci situation bi li ñuy def baax na trop am nañ ay daayira am nañ ay association loolu yëpp lu baax la waaye war nañ commencé toog wax si développement jóge vraiment dans le secteur informel dugg bu baax si dans le privé participer si li développer si réew yi loolu mën na nekk suñu xoolee suñu voisins yi nga xam ni que ñoom li ñuy wax maghrébien yi ñoom bariwuñu sax trop mais ils sont très organisés defe naa ni Maroc la Tunisie Égypte ak Algérie mais ñun na lañ gën a bari potentiel yi ñu yor ñoom yoruñu ko ñun soo xoolee ci yaa Cameroun ci yaa Côte d'Ivoire Sénégal Guinée mun naa lim ba une dizaine donc y a un marché énorme te suñu si jugul ñeneen ñi noo koy jëfandikoo mi chinois yi mi pakistanais yi ak ñeneen et temps am nañ compétence yi dañuy toog rek ñu waxtaan jéem a organiser wu gën a jàppante daanaka yombul mais c'est possible lu ñeneen ñu mën ñu mën nañ ko foofu daan laa xamoon ni que mën naa yem foofu di sant bu baax nag et puis ngi tuub di jéggalu suñu boroom si nattu bi nga xam ne wàcc na ci àdduna bi di ñaan yàlla yàlla yàlla waa wàccee yërmande si àdduna bi yàlla saafaral nu feebar bi fajal nu ko ñi nga xam ni que ñoo si hôpital yi feebar yal na yàlla saafara seen feebar fajal leen ko ba ñu delluwaat seen njaboot delluwaat seen liggéey ñi nga xam ne dañ si faatu ñàkk seen bakkan yal na leen yàlla yërëm wassalaam jërëjëf Momar kàddu yi am na solo lool ñu mën ci tënk nag baat yu am solo bi ci njëkk mooy gën a ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoo di suñu dirigeant africain yi ñu gën a dooleel seen secteur privé ngir jox ndaw ñi liggéey beneen bi ci tegu mooy ñi nga xamante ne ñoo fare bitim réew muy diaspora bi ñu gën a àndaat gën a booloo gën a jàppante gën a jëmmal suñu taxawaay ci wàllu secteur privé ak entrepreneuriat. ñetti ayu bés ci ginnaaw gannaaw ba jàngoro bi duggee ci dëkk Europe yi ñu gis ne kilifa yi jël nañ ay dogal yu am solo ngir xeex ak jàngoro jooju ngir mu bañ a law ci dëkk yi ñu tàmbalee ko ci tëj école yi ak université yi ak yenn ci ay commerce yi nga xamante ne amaana mën naa bañ a ñàkk mais ñu àndandoo. ak ay mesures yu am solo yoo xamante ne day gunge ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor yooyu les commerces ci Belgique ñu dem vers le confinement maanaam toog ci suñu ay kër ñi nga xamante ne waruloo mën a ñàkk ñuy def li ngay li ñuy woowee télétravail maanaam di liggéey à partir de seen ay kër ñu nemmeeku nag ne suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo faree ci diaspora yi am na ci ñenn ñu nga xamante ne amaana seen loxo jotul seen ginnaaw. dañ doon góor góorlu ci ay liggéey yu nga xamante ne ñi ngi ko doon am te mu nekk liggéey yu nga xamante ne xëy na demeewul noonu mesure boobu nag bu dalee seen kaw dina metti lool comme feneen ak feneen ci dëkk Europe yi métit boobu nag ñu bëgg ko joytu fi nga xamante ne moo di ci reportage bi nga xamante ne ñi ngi koy amal ngir nit ñi bàyyi leen xel parce que ci société ba lañu ñu bokk te doon nañu góorlu di dimbale seen ay njaboot ci Sénégal tey jii ñu ngi dans le confinement ñu war leen bàyyi xel amaana am na ñu nga xamante ne bu ñu nekkee dans le confinement dinañu mën a continuer di dund mais ñu bàyyi xel suñu mbokk yi nga xamante ne ay sénégalais lañ nekk ci diaspora bi te seen loxo jotul seen ginnaaw. gannaaw loolu ñu ànd ak Abouna Mbaye nekk président association Sénébel muy association des sénégalais de Bruxelles et environ. xam ngeen ne association yi tënk ci dafa am solo ñi ngi gunge ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi nekk ci Belgique moom aussi mu wax ñu yan ci ay matuwaay la ñu jël ngir gën a informer ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi ci jàngoro ji ni muy doxee ak naka lañ ci war a mën a ak ban taxawaay lañu ñu war a mën a am ngir gunge ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais ñu àndandoo seetaan Abouna Mbaye am na ni Sénégal Euh, di association sénégalais ak sympathisants yi nekk euh, Belgique day œuvrer si euh, li si gën a am solo si programme am mooy le social ndax ku ne xam na ni Sénégal réew mu xaw a metti la nit ñi dañoo bàyyi foofu ñëw fii di ut dara waaye nag du caagee nit ñi fi nekk ñëpp dañoo nekk si situation boo xam ne tamit day doon situation bu confortable kon nag am na ñoo xam ni suñuy mbokk yi suñuy compatriotes lañu dañuy dund situation yu xaw a jafe. surtout rawatina jamono bi nga xamante ni bii euh, lii lëmbi àdduna di Covid 19 dafa agsi euh, dolli si euh, xar mi kawar ndax Sénégal yi nga xamante ni bii dañoo nekk si situation yu xaw a jafe nekkoon si situation irrégulière doon liggéey au noir nga xam ni état waajuru leen dara ñooñu dana metti lool buñ leen jàppalewul moo tax ñun suñu wàllu bopp bu ñu dajalee bi ñu dajoo. Euh, dajaloo ci conseil d'administration bi waxtaan kat ñu ne ñun war nañoo apporter suñu touche euh, si euh, ñooñu nga xam ne ndimbal lay doon si ñoom ñu jàppale leen ko ngir situation bi ñuy dund. si la ñu sax doon réfléchir si naka la ñuy mettre en place un numéro vert boo xam ni képp kuy Sénégal nekk si Belgique da nga mun a woote soo wootee ñu xelal la xalaatal la waxtaan ak yow si situation bi waaye techniquement. doon na xawoon euh, compliqué ngir ñu mën ko def waaye suñu téléphone yi ubbeeku na ñu nu membre wu bi yëpp ba ku si bëgg woote mën ngaa woote kon nag ñu ngi doon liggéey si élan de solidarité boobu ak euh, bon volonté yu bare bari wax dëgg yàlla macha allah mais faral di wax naan mbir mi moom def see sotti si la ndax am na ñu bare bari ñu amoon initiative pour def euh, une action sociale après bi ñu réfléchir ñu waxtaan ak ñooñu si la ñu def benn affaire boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk defandoo ko Sénégal chapeauté ko Sénégal jiitu. donc euh, bala may noppi xam naa Thierno boo ma ko permettre dinaa la jox numéro téléphone boo xam ne ku si bëgg a woote mun ngaa woote dinaa la jox tamit euh, numéro de compte boo xam ne képp ku ñu si bëgg jàppale sa boobu mun nga si euh, indi sa ndimbal dinañuy faral di dajale tamit ay denrées non lu mel ni ceeb ak suukar ak diwlin ay pat dina mu dinañ soxla tamit ay xaalis ndax dina am ñoo xam ni xëy na soxla wuñ ceeb ak diwlin waaye dinañ soxla. tuuti koppar yu ñu mën a régler seen i frais yu sew sewaan kon daal élan baa ngi noonu Thierno euh, Sénégal ubbi na ko yaatal ko si ñëpp rek ba képp kuy Sénégal nekk Belgique te yàlla mën loo la ko loo si mën a def nga def ko si euh, ñu dajale ko def ko ay pak yoo xam ni euh, danañ ko mën a séddale way néew doole gi. Thierno gis nga xam nga mbir mi dafa toll situation boo xam ni nekkatul yëf yi benn nit. nekkatul yëf yi euh, groupe nekkatul yëf yi mbooloo yëf yi nekkatul yëf yi réew yëf yi àdduna la ndax bu OMS demee ba déclaré ko pandémie mooy euh, problème bi sérieux na sérieux boo xam ni euh, kenn mënu koo natt kon nag li may faral di wax naan sax di wala ma ko may faral di répété problème su amee donc mesure problème exceptionnel mesure exceptionnelle Euh, tey dem na ba àdduna bi yëpp daanaka réew moo mën a xool rek bu feebar bi na fa ñu ngi confinement confinement mooy lan mooy dañoo war a toog suñu kër yi euh, dañoo war a euh, fas yéene conformé ak li nga xamante ne bii moo ñu yàlla dénk seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram si wàllu maladie yi feebar yi nga xamante ni bi day wàlle ñu mën a déglu seeni xalaat mën a déglu seen i conseil conseil bi mooy lan lillaahi wa rasul yi dañ koy dagaan ci askan bi na ku ne toog sa kër toog sa kër moo gën laneen ndax bu ñu toogul suñ kër yi xëy na mbir mi dana ak foo xam ni kenn du ko mën a maîtriser su boobaa lay faatu xëy na nit lu ma kenn dina bare bare goo xam ni uh, musiba lay doon kon na defe naa ne liñ naan uh, fagaru moo gën faju covid 19 jàngoro ju am la te luy rey la fi ñuy waxee ak yéen ci statistiques yi ñu mujj a jot 549 604 personnes ñoo amee doomu jàngoro bi ci àdduna bi yëpp lu toll ci 127 531 personnes ñoom ñoo mucc ci doomu jàngoro bi waaye nag lu toll ci 24 000 personnes ñoom ñoo loru ci li nga xamante ne moo di doomu jàngoro bi mooy ne ñoo ñàkk seen bakkan ñu ko am mbégte ak contentement bu mag. amaleen loon reportage boo xamante ne amoon nañu yéene sottante xalaat ak yéen partage ak yéen information yi nga xamante ne ak jafe-jafe yi Covid 19 di amal ci àdduna bi rawatina fi nga xamante ne moo di pays Europe yi rawatina fi nga xamante ne moo di Belgique bi ñu nekk di fi dund. daañu continuer ak yéen ci yeneen reportage yu gën a xóot ci li nga xamante ne moo di njeexital li Covid 19 mën a am ci askan wi mën ko am ci économie. mais it mën ko am ci dundinu askan wi ci li nga xamante ne moo di dans le futur ñu amoon mbégte ànd noonu ak yéen di gërëm di sant ñëpp ñi nga xamante ne intervenir nañ de loin ci li nga xamante ne moom moo di reportage bi sant ak ngërëm ñeel mi nga xamante ne moom moo nekkoon ci réalisation bi ak caméraman di leen dig daje ci yeneen reportage yoo xamante ne dina ñeel li nga xamante ne moo di Covid 19 bi ak fi mu toll ci àdduna jërë ngeen jëf. ñu raxas loxo yi te takk masque yi soo ko amul mun nga utiliser mouchoir ñu moytu mbedd mi ak xeetu ndaje yi mën na dawal jàngoro bi dafa gaaw de ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi ndax ñu saytu sunu yaram ba mu tële ñu moytu corona.